Aminata Touré ñu ngi lay nuyu. présidente Aminata Touré. présidente Aminata Touré. su fekkente ni disponible na ak la régie s'il vous plaît. allo. allo. ah donc mu mel ni dañoo. ala présidente Aminata Touré ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw ah, gis nga dogal bi nga xam ne tukkee na tey ci assemblée nationale. Euh, nekk dogal boo xam ne dafay dàq élection yi ba fukki fan ak juróom ci weeru février ban commentaire nga ci am ci loolu. xanaa am ci am ci am ci euh, di ko ñaawlu ndax euh, démocratie sénégalaise masta delloo ginnaaw nii mu delloo ginnaaw ak loi bi nga xam ne jël nañu ko. Euh, ndax muy président Senghor di président Abdou Diouf di président lay Wade kenn mu ci jugee dàq ay élection présidentielle mhm. kooku di benn kon booy seet mandarga yi euh, fin wu régime président Macky Sall la mu ca indi mooy dellu ginnaaw goo xam ne gi ñu ngi ko firndeel ci dàq ay élection présidentielle mhm. euh, élection présidentielle bu ñu ko daan dàq ci yenn réew yi day fekk ñu ne ah réew ma kat ña ngay guerre wala réew mi kat parlement bi bloqué na waaye wala réew mi kat conseil économique ba doxul wala président ba ak nangam waaye fii jàmm ak salaam rek a fi kon euh, lii xew euh, vraiment ñaawlu nañu ko ba noppi nag mu indi dugal euh, réew mi ci ci guuta ndax guuta gi mooy président Macky Sall constitution bi wax na ca na mu gën a leere ne kenn mënta def lu ëpp ñaari mandat waa léegi moom teg na juróom-ñeenti weer ci mandat bi loolu fan ci lan la ko wee juróom-ñeenti weer yi nga xam ne yokk na ko ci mandat loolu violation constitution la foofu la ñu toll fi ñu toll nii. kon à partir du 2 avril. cest di dire moom daal mënut a wàññi mais mën na yokk mandam daal. waa voilà mën na koo wàcc waaye waaye mën na ko yokk ko fu ko ma a gisee. Mhm. dañu ma wax fan ci constitution bi leen gis ne président mën naa yokk mandat. Mhm. fan lañ ko wéer. kon léegi député yi daal ñoom loi seen loi ak lanu bëgg seen bëgg-bëgg moo moo jiitu moo sut constitution mm-hmm. loolu dellu ginnaaw mos koo gis ñun ñi nga xam ne dañ doon bàkkoo suñu constitution voilà ñu ñu ci naw di ñu ci kañ tey euh, vraiment ñëpp ngi ñuy ree voilà ba ci gis ngeen sax généraux yi nga xam ne ñoo ñoo jël pouvoir ci ñetti dëkk yooyu ñu mm-hmm. Niger di Burkina Faso ak Mali voilà nañ ñuy kekkalantoo voilà donc loolu vraiment lu lu lu nuy naqaru la waaye nag dafa am solution aussi dafa am solution ndax démocratie bi moo mag Macky Sall. Mhm. lan mooy solution bi processus démocratique la jaar ba doon président. Mhm. jaarul feneen ah. Mhm. dafa dafa jaar ci processus démocratique processus démocratique boobu nag moomu la yàq tey. lan mooy solution bi lan mooy solution bi présidente Aminata Touré. solution bi du dara dul am benn mouvement citoyen bu yaatu de résistance leneen amu ci. ok ndax nit ki nag aussi. Euh, mënuñoo toog rek président Macky Sall di agressé démocratie bi ah tëj ay tëj tëj ay ay opposant yoo xam ne waroon nañ nekk candidat foqati ay mandat député tëj suñu deux plus de deux mille cinq cent xale ñu tëj leen waaw loolu loolu agression yooyu dañu toog rek di ko seetal hmm. duñu ko def duñu ko def hmm. syndicat yi danañu taxaw ànd ak société civile ànd ak opposition ànd ak sénégalais yi face face ñu seet ndax dix-huit de sénégalais yi danañu tëj kaso ñu ñëpp na kon nag uti café yoo xam ne dix huit millions de sénégalais xaj nañu ci mu dugal ñu ci. Mhm. voilà looloo looloo fi nekk leneen new d' accord jërëjëf soxna Aminata Touré euh, mu nekkoon euh, ancienne premier ministre nekk itam candidate euh, candidate ci élection présidentielle yi nga xam ni ci la ñu nekk waaye mu jul woon jàll ci parrainage bi loolu itam indi woon gàllankoor ci li nga xam ni moom mooy candidature ñu daal di